bismillah min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa mawlana muhammad wa alihi wa sahbi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa zidni ilman wa xabli xukman wa alxiqni bisaalixiin wajal li lisaana sidqin fi laaxirin wajalni min warasati jannati naim faxfir lana warxamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin assalaamu aleykum wa rahmatullah Chers amis auditeurs, la grâce de Dieu, subhanahu wa ta'ala, aidant en ce jour béni, en compagnie de notre frère Vieux Mass Gueye, nous allons poursuivre la réflexion sur la problématique de l'application de la charia dans notre monde rebelle d'aujourd'hui. Nous avions dans les séances passées vu ce que signifiait la religion. Ensuite, le fait que l'islam a des piliers immuables et des piliers variables, ce que nous avions appelé les principes généraux et les principes particuliers. Nous avions aussi vu les hudud ou le code pénal. Aujourd'hui, nu aimerions nous arrêter sur le système juridique de l'islam mbokk yi gannaaw bu ñu sante yàlla subhanahu wa taala dellu nuyu kenn ku nekk ñu ànd ak sunu mbokk Vieux Mass Guèye fas yéene wéy ci li ñu doon càmbar ci àtteb sharia jafe-jafe yi mu am tey ci nit ñi mën a nangu topp àtte yàlla subhaanahu wa jotoon nañu gis lan lay firi diine mu wuute ak ñeneen yi ni ñu déggee diine nu taxawoon ci sunu jataay yi wees ci yi nga xam ni athawaabit ponk yoo xam ni du soppeeku mukk ñu gisoon itam yi nga xam ne day soppeeku ànd ak jamono walla di dëppoo ak moom gis nañu masalatul xudud muy àtte yi ak lennat ci ay jëf yoo xam ne ci lañuy teg ay yar lennat yoo xam ne ci lañuy teg ay neexal tey nag ci mbaaxu borom bi subhanahu wa nu fas yéene taxaw ci système juridique muy tëralinu àtte ak yoon na nga ne noonu la ko l'islam rëddi amis auditeurs la philosophie du droit musulman repose sur la nécessité de faire le bien partout et toujours et de s'abstenir de faire le mal partout et toujours mbokk yi xaayida bi mbëmbëstal bi nga xam ni ci la lalu gis-gisu yoon ci lislaam mooy la ñuy wax al jëfe lépp loo xam ni mooy li baax saa su ak fu mu mënti doon nit ki def kem kàttanam pour taxaw taxawaay bi gën a baax noonu itam lay def saa ne <coughs> ak bërëb bu ne mu def kàttanam ngir bàyyi moytu sore lépp loo xam ni mooy lu ñaaw lu bon <coughs> le bien que le Coran appelle al-ma'rouf c'est ce qui est ce qui est instinctivement reconnu par le monde entier, par toute nature non corrompue, comme étant acceptable. Ainsi le mal, le munkar, dans le vocabulaire coranique, c'est tout ce qui est blâmable, de façon spontanée, tout ce que la nature non corrompue rejette et refuse de se faire appliquer. Entre ces deux pôles, de ce qu'on accepte automatiquement comme bien et de ce qu'on refuse instinctivement comme mal, il se trouve une foule de choses qu'il est nécessaire de déterminer et de situer dans telle ou telle catégorie. C'est ce qui est à la base de la bipolarité de toute règle juridique en islam mbokk yi gis nga diggante al maaruf ak al munkar muy li baax ak li bon <coughs> yu bare ñu ngi foofu yoo xam ni yu lënt la muy laaj nag saa su nekk ñu taxaw càmbarka seetlu ko xool fan lañu koy tàbbal ndax dañu koy tàbbal ci yi baax wala dañu koy tàbbal ci yi bon mbokk yi l'islam impose à ses adeptes comme un devoir absolument obligatoire de bien faire tout ce qui est bon c'est ce qu'on appelle les faraïd les obligations. Et par ailleurs, il impose et interdit tout ce qui est considéré comme un mal absolu. C'est dire que tout ce que le Coran a nommément cité comme une obligation à faire ne comporte que du bien que l'individu le sache ou qu'il l'ignore. Et tout ce que le Coran a nommément cité comme interdit, ou que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a nommément cité comme interdit, tout cela ne comporte que du mal, je devrais dire c'est le mal absolu, personnifié. mbokk ànd ak nun ci bis bu tedd bii fii ci rajo senegal International nuy fàttali sunu bopp ni ci liinu wax danga ci jële ni bon lislaam borom bi subhaanahu wa lépp loo xam ne joxañ naka ni def leen ko rek farataal ka wala mu dénkaane ka loola yiwi kese la mbaaxi kese la lépp it loo xam ni joxañ na ko duut ko baaraam wala yonent bi sallallahu alayhi wa alihi duut baaraam ca loola ni lii baaxut wala mu dénkaane ni moytu leen nàngam na yëg ni nàngam loola mbon kese la bu yeboon nag nit ñu xam mbon gi wala ñu réere que alors que selon la même tout ce qui comporte plus de bien que de mal, donc dont le taux de bien est supérieur au taux de mal, restera du domaine du recommandé et du méritoire. Tout ce dont les deux aspects sont égaux, le bien et le mal s'équilibrant, cela aussi sera laissé à la discrétion de l'individu qui à part de soi est libre de le faire ou de ne pas bokk yi dañuy gis ci lii ñu wax ni nattukaayu baax ak bon day nekk bon ci mbir mu ne nga fekk bépp mbir moo xam ni mbaax ga moo ëpp li mu ëmb ci mbaax moo ëpp li mu ëmb ci mbon bu boobaa dañu koy rafetlu mu bokk ci yi nga xam ni dénkaane nañu ko defal ko ay yiw yu bare ci payoor lépp loo xam ne nag li bon ak li baax ñoo ca tolloo ci biir l'islam da cay noppi ni pat bàyyi nit ki bu ko neexee mu def bu ko neexee mu jàpp boppam ca loolu enfin amis auditeurs toute chose qui comporte un taux de mal supérieur au taux de bien sera considérée comme répréhensible et déconseillée ou simplement interdit ok ci nattukaay bi dañuy fekk bon l'islam daldi ni bépp mbir boo xam ne natt nañu li mu ëmb ci mbaax ak li mu ëmb ci mbon mbon gi ëpp li mu ëmb ci lu baax kooka dañu koy daldi di sip wala sax ñu tere ko rek ni bu leen def nangam ainsi Dieu subhanahu wa ta'ala nous donne une certaine liberté. Après nous avoir donné la raison. Et cette liberté et cette raison doivent être des instruments d'investigation pour déterminer la nature des choses et nous porter toujours vers le ma'rouf, vers ce qui est bien. Lorsque nous regardons le Coran, nous voyons que Dieu subhanahu wa ta'ala nous donne un exemple pratique de cette distinction de chaque chose ou de chaque acte distinction qui nous permet de repérer cinq catégories en tenant compte bien sûr de ce que nous disions du taux de méfait ou du taux de bienfait cet exemple que Dieu subhanahu wa ta'ala nous donne servira de jurisprudence jusqu'à la fin des temps et servira aussi pour tous ceux qui veulent faire de la recherche et de l'investigation. Cet exemple, c'est l'interdiction du vin et du jeu de hasard. yi yéen ñu tedd ñu ànd ak nun ci bis bu tedd bii yàlla subhaanahu wa taala dafa nu jox xel jox nu itam coobare ci nu mën a luññetu di gëstu ba mën a xam lan mooy li baax ak lan mooy li bon looloo tax boo demee ci alquran alkarim da ngay fekk yàlla subhaanahu wa taala joxe misaal yoo xam ni ñépp ñi nga xam ni dañuy liggéey ci yoon walla mu nekk seen yitte ci xam mbaax fu mu féete dañ cay dal di mën a sukkandiku bu ñu xoolee misaal yooyu nag dañuy fekk muy séddale mbir yi ci juróomi fànn juróomi xaaj misaal yooya yi ci tànn tey mooy misaaluk tere sàngara ak PMU muy loterie di wuure la première catégorie ou la première étape amis auditeurs est ce que nous trouvons dans le verset 67 de la sourate les abeilles Dieu subhanahu wa y dit des fruits du palmier et de la vigne vous confectionnez un enivrement et une nourriture délicieuse. Il y a là un signe pour des gens qui réfléchissent. Lorsque nous méditons ce verset, nous constatons que, à l'état naturel, la vigne est une nourriture délicieuse. Mais lorsque l'intervention de l'homme agit, c'est l'homme qui, par la fermentation et d'autres techniques, crée et confectionne un enivrement. Mais à cette étape, Dieu subhanahu n'a pas encore dit je vous l'interdis. Il attire seulement l'attention sur le fait que vous avez dénaturé les choses, que vous avez commencé à produire le mal par votre action et votre attitude. bi njëkk mooy suratu naxli laay juróom benn fukk ak juróom ñaar muy jéego bi njëkk ci wan nit ñi ni leen lii bu ngeen toppoon seen xel du ngeen ko def yàlla subhaanahu wa taala dafa wax mu ni wa min thamarati naxil bokk na ci danañu jële ci meññentu tàndarma yi wal anaabi ak reseñ yi tattaxizuuna minhu sakaran yéen nit ñi dangeen ci jële loo xam ne day màndiloo wa rizqan xasanan ngeen di ci jële it lekk gu yiw gu sell gu baax na fi dalika la aayatan li qawmi yaqiluun nekk na ci li ab tegtal ñeel koo xam ni da xalaat mbokk bu ñu xalaatee ci lay ji dañuy fekk ñaar bi njëkk mooy bon raisin ji ak tàndarma ji li fekk pexey doomu aadama tàbbiwu ci risqan xasanan lekk gu yiw tàndarma ji neex doomi raisin yi neex waaye nit mooy dugal ay pexeem di defar ba génne ci sàngara soo xam ne ku ko naan mu yàq sa xel yàq sa yaram yàq sa dund ci àdduna yàq sa dund ci àllaxira xoolal kooku mooy jéego bi njëkk ci yàlla subhanahu wa taala wane ni am na lu ngeen def loo xam ni mooy ñëw daf yàq ci li ma def man borom bi subhaanahu wa taala auditeur am la deuxième étape c'est que devant toute chose inconnue devant toute nouveauté le musulman doit mesurer le taux de prédominance entre le bien et le mal que cette nouveauté cette chose contient C'est le verset 219 de la sourate La Vache qui nous le dit. Dieu y dit. Il t'interroge sur l'alcool et le jeu de hasard. Dis-leur, l'un et l'autre comportent un grand péché et un bienfait pour l'homme. Mais le péché l'emporte sur l'agrément. C'est ainsi que Dieu vous détaille les enseignements pour que vous réfléchissiez. amis auditeurs, lorsque nous regardons ce verset, nous constatons que Dieu subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire il faut toujours peser entre le bien et le mal. Le jeu de hasard, le vin contient du bien peut-être, mais contient du mal en taux supérieur. mbokk yu tedd yi ànd ak ñun ci bis bu yàlla subhaanahu wa taala dinu bàyyiloo xel ci lépp loo xam ni daj nañu ci moom xamuñu ko woon wala yees na ñu indi ko mu ne natt leen mbaaxam ak mbonam ngir xam fu ngeen koy féetale ak lan moo war nekk seen jëflanteeg moom soratu bàqara lay ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeent la borom bi subhaanahu wa taala leer leerali mu ngay wax mu ne yasalunaka anil xamri wal maysir gaañi dey ñëw nañu di la laaj attey sàngara ñoll ak drogue yépp wal maysir ak loterie bu mu ci mënti doon nag bi ñuy defee ci jënd kart ak bi ñuy defee ci message ci télévision yi mu ne laaj nañu la loolu xul na nga tontu yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam xul na nga tontu yow jullit bi nga ni fiihima ithmun kabir ñaar ñooña day ëmb nañuy eh, bàkkaar bu rëy wa manafiu linnaas ëmb nañu it lëf ci njariñ ci nit ndax ku gañe xaalis xëy na daa ci jariñu ku naan sàngara bala sa xel di dem la nga tiitoon lépp dootoo ci ragal dara wa ithmuhuma akbar min nafihima waaye nag bàkkaar ba mu lay soob di la ko jural moo gën a rëy moo gën a garaaw bon min nafihima li nga ci mënoon a jële ci njëriñ kadalika yubayinu llahu lakumul ayat nii la leen yàlla subhanahu wa di leerale ay atteem di leen joxe ay firnde laallakum tatafakkaroon ngir ngeen di xalaat mbokk yi xalaat lanu yàlla woo ci bépp bi ngir mën a ràññee xam li baax ak li bon jéego yi yëpp day yàlla subhaanahu wa taala daf ko def ngir jëme ñu ci pere li nga xam ne mooy sàngara ak loterie waaye mu nekk jéego ngir wannu yoon wu nuy jaar nun boo xamee ni gisuñu àtte ci alquran gisuñu sunna mu tudd mbir te mbir ma bees ci sunu kanam jéego yii lañu war a jéegowaat ngir wax ni lii fii la féete wala fële lay féete auditeur La troisième étape, c'est de considérer l'incompatibilité spirituelle entre le péché et l'adoration de Dieu. Tout ce dont le mal est prédominant, prépondérant, par rapport au bien qu'il contient, devient comme un anesthésiant qui neutralise et annule les effets bénéfiques qui découlent naturellement des pratiques cultuelles et du bien que yi borom bi subhaanahu wa taala bëgg ñu bàyyi xel itam ci mbir mooy ni gis nga bàkkaar bépp xeet bu mu ci mënti dafay safaanoo di yàq la nga xam ne moom la jaamu yàlla waroon jur nga ne bon bépp mbir moo xam ne xool nga ko li mu ëmb ci lor ëpp li mu ëmb ci baax dafay mel ni pikiir yooyu ñuy pikiir nit pour dootul yëg dara bon boo defoon lu baax mu war a jur dara kooka day ñëw pikiir ke dootul jur dara mu yàq lépp lu ci waroon a jóge moo xam ci say julli say woor moo xam ci say jëf yu baax le Coran dit cela au verset 43 de la sourate les femmes ô N'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Dieu subhanahu est indulgent et pardonnateur. Ami auditeur, médite ce verset et tu comprendras que tous les péchés que l'individu fait de façon délibérée, ces péchés l'excluent automatiquement du champ de l'adoration de Dieu. puisque l'homme ivre, l'homme qui a consommé de l'alcool est exclu de la mosquée si nous savons que la prière est le seul pilier qui ne peut changer mbokk yi borom bi subhanahu wa taala boo demee soratu nisa lii ñu la wax ni bàkkaar day day nasaxal di neenal jur li nga xam ne moom la jëf yu baax yi waroon jur daa ko fekk laay ñeent fukk ak ñett ba tey ñu ngi ci jéego yi tere sàngara mais dafa lay wax lu tax ñu la koy tere fii li tax ñu koy tere mooy safaanoo bi mu safaanoo ak jaamu yàlla yàq gi muy yàq jëf yi nga xam ne moom ngay jëf mbaax jëm sa diggante ak sa borom mu ne yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm laa taqrabu salaa bu leen jege mukk bërëbu jullikaay bu leen dem jàkka bu leen julli wa antum sukaara li feeg yéen a ngi màndi yéen a ngi xeeñ sàngara di naan sàngara xatta taalamu ma taquluun baba ngeen di ànd ak seen xel sàngara gi génn ci yéen ngeen xam la ngeen di wax inna allaha kaana afuwan ghafuur yàlla day kuy jéggale la di jëllale di bale mbokk yi laay ji dafa lay won rekk beneen jéego mooy ni mbir mi ñu lay tere yamul rek ci ñaar yi la wax de ni yow def nga ci loo xam ni yàq na li yàlla subhaanahu wa taala bindoon bàkkaar bu rëy la lay jural waaye yàq na dana nasaxal di neenal sa ay jëf yu baax auditeur la quatrième étape ou la quatrième catégorie ce processus de l'interdiction ou ce processus d'identification des choses, c'est la sentence maintenant. La sentence pour tout ce qui produira le même résultat que ce que nous venons de dire, ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a donné comme exemple, c'est le vin et le après un examen minutieux fait par des gens compétents sur n'importe quelle nouveauté, n'importe quelle invention, n'importe quelle action, si les savants musulmans arrivent à la conclusion que le taux de mal est supérieur au taux de bien dans telle chose ou dans tel acte humain, cela aura la même sentence que ce que nous voyons au verset 90 et 91 de la table concernant le vin et le jeu de hasard. Dieu subhanahu wa ta'ala dit, je le vin, les jeux de hasard, les idoles et les flèches divinatoires sont d'exécrables inventions de Satan. Éloignez-vous-en si vous voulez faire votre salut. Satan se sert de, des substances enivrantes que sont le vin et les drogues et se sert des jeux de hasard pour semer la discorde et l'inimitié parmi vous et vous distraire de la psalmodie des noms de Dieu et de la prière. Est-ce que vous allez vous en abstenir? lorsque le Coran posa cette question au premier musulman. Ce jour-là, tout le monde est sorti de sa maison. Les gens couraient dans les rues de Médine, brisaient les bouteilles de vin, jetaient tout ce qui servait à faire de la divination du Ghissané en disant, nous nous en abstenons Seigneur, nous nous en abstenons. Les gens d'aujourd'hui disent si Dieu nous donne la force, nous nous en abstenons. Ceux-là la force déjà dans leur foi et disaient nous nous en abstenons, sans préalable, sans préparation. hal antum muntahun intahayna yaa rab mbokk yi yi li tax yàlla subhanahu wa taala jox leen gëdd mooy yii ñuy wax yépp ñoom ñoo war a taxaw di ko luññetu di ko seet gis nga bu boroom xam-xam yi nga xam ni seen xam-xam wér na waxantuwuñu làmbaatuwuñu dem nañu xool mbir di ko natt ba ni loram moo gën bare yiwam ñooña dogal bi yàlla subhaanahu dogal ci sàngara ak loterie muy soratu maida laaye juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeen fukk ak benn moom la ñuy àtte ci mbir moom gannaaw jéego yi ñu la wax yépp ci analyse ci seetlu ak settantal borom bi subhaanahu wa dafa wax mu ni yaa ayyuha alladina amanu ey yenn jullit ñi innamal xamru dama bëgg ngeen xam ni sàngara ak xeet bu mu ci mënti doon ak drogue lépp luy muur xel di ko yàq wal maysir ak loteri ak bu mu ci mënti doon rek wax naa ni la bu bu bu bu message yu téléphone portable ak jënd këyit bu mu ci mënti doon ci xeet yu bees yi ñuy dund tey dugg na ci maysir wal ansaabu ak xàmb yi ñu jóor ci digg kër yeeg ci wanag yeeg ci roqu kër yi wal azlaamu ak pettaaw yeeg lépp lu ñuy gisaane yàlla dajale yii yépp ak lépp loo xam ne jamono dana dox ba mu tàbbiwaat ci mu ne rijsun min amali sheytaan nangeen yëg ni sobe la lu bon la soqee ko ci jëfi sheytaan ibliis ak ñamu àndal bul fàtte laay dañ leen jokkoon wax mu ne woon wa min thamarati naxiil wal anaab tattaxisuuna minhu sakar bon jëfu seytaan yi ñëw tàbbal ci lu bon fajtanibuuhu na ngeen ko moytu sore leen que laallakum ta tuflixuun su ngeen ko defee da ngeen di texe dund dund gu tedd ci àdduna dund dund gu tedd ci àllaxira innama yuridu cheytaan xoola mu lay mu lay lu tax mu tere mu ne li seytaan namm ci tàbbal la ci naan sàngara li mu namm ci tàbbal la ci jouer loterie yeeg PMU yeeg lu mu ci mënti doon an yuqia baynakumul adawata dafa bëgg def ci seen diggante noono wal baada ak bañant fil xamri mu jaare ka nag ci sàngara wal maysir ak loterie ak yépp yu mel ni ñoom wa yasuddakum an dikrillah mu dëddale leen ak di tudd yàlla subhaanahu wa taala wa an salaat mu dox seen diggante ak julli fa hal antum muntahun ndax yéen pare ngeen pour bàyyi lii gis nga loolu tere la bu garaw boo xam ni bu àdduna doxee rek lu boroom xam-xam yi ñëwati ni lii loram mu wér ni lii loram moo ëpp njariñam comme médecin yi bu ñu nee mais bu ko defee kenn ku nekk ci ñun bàyyi xel ci nattukaay bi alquran joxe teg lépp nag ci natt li nga xam ne mooy li baax natt li nga xam ni mooy li bon ñuy ñaan yàlla subhanahu wa mu mu wërsëgal nu boole ñu ci ñiy dégg di mën a topp lala yomb nag yàlla na nu ko defal pragmatisme de la loi islamique a simplement pris en compte la complexité et la diversité de la nature humaine, car les savants sont parvenus à la conclusion qu'il y a trois types d'individus. Premièrement, ceux qui naturellement sont tournés vers le bien et qui n'ont pas besoin d'être contraints pour résister aux tentations du mal. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont foncièrement mauvais, dont la nature est corrompue et qui finalement font tout leur possible pour éviter le, de faire le bien et trouvent du plaisir à faire finalement le mal. Enfin, amis auditeurs, la troisième catégorie, c'est ceux qui agissent convenablement quand ils savent qu'ils sont contrôlés, qu'ils ne peuvent échapper à la loi mais qui se laissent aller dès qu'ils ont la certitude qu'ils n'encourent aucune sanction ou qu'ils peuvent échapper à la sanction yi li nu la wax dafay feeñal leer gis-gis boo xam ni attey lislaam leer na gis-gis waaye gis nga taxawaayu àtte bi ak tëralinu àtte bi li mu bàyyi xel mooy melokaanu nit melokaanu nit boobu nga xam ni lu lëndëm la boroom xam-xam yi lu ñëtu gis ñetti xeeti nit ñu ne bi ci njëkk mooy nit ñi nga xam ne ñoom vraiment yàlla subhaanahu wa defal na leen tawfiq ñu am xiirtal jëm ci lu baax bëgg lu baax nga xam ne ñooñu soxlawul ñu leen di gëtën wala di leen forcer ngir ñu góor góorlu ba liñ leen xëcc jëmee ci lu bon ñu jàpp ci seet bopp ñaareelu catégorie bi mooy ñi nga xam ne mooy safaan bi rek ñoom seen xol yàqu na dara neexu leen lu dul lu bon seen kem kàttan bu dégg bëccëg ñu ngi koy def ngir bañ def lu baax ñetteel bi mooy ñi nga xam ni ñoom ci kaw yoon rek la dox boo xamee ne gis nañ ni mënuñu rëcc yoon ñu ñu dox lu jub bu ñu mënee yët rëcc yoon rek def lu leen neex nga ni chauffeur bi nga xam ne mu ngi def lu ko neex seen alkaati ba daldi tegewaat ci kaw code de la route kooku mooy catégorie nit bi gën a bare nga xam ne ñoom bu bu ñu gisee yoon ni mën na dal ci seen kaw wala mënuñu ko rëcc ñu def njub bu ñu gisee ni mën nañu rëcc yoon wala yoon mënu leen dara ñu def lu leen neex les deux derniers sont les plus nombreux, c'est-à-dire ceux qui sont foncièrement tournés vers le mal et ceux qui agissent en fonction de la loi et de sa rigueur. Ces deux catégories ont besoin de la surveillance de la loi et de l'action thérapeutique de la sanction. Lois et sanctions sont donc en islam conçues pour protéger les intérêts de la société et les intérêts même de l'individu à qui on applique la loi. Et tout cela révèle finalement la sagesse infinie de Dieu subhanahu wa ta'ala et la miséricorde infinie de la dernière mission divine du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Entendez bien de l'islam. ñaari catégorie yu mujj yi mooy ñi nga xam ne ñoom def lu bon rek ci la ñu sóobu ak ñi nga xam ne ñoom yoon la ñuy xool rek dëppale seen jëf ak yoon ak duma yi leen ci mën a fekk ñaar yooyu ñoo gën a bare moo tax yoon dafay ñëw war taxaw di sàmm di aar di ñëw di delloo gannaaw bëgg-bëgg yi nga xam ni dëppoo wut ak yoon moo tax ci lislaam bu ñu dumandit walla ñu teg yoon du dañu ko bëgg gunduxatal wala ñu mettital ko mais ñaar benn dañuy aar askan wi ci ay loram parce que benn nit boo xam ne war nga am sañ-sañ di lor nit ñi ci saabu la neexee te yow dara du la ca fekk ñaareel ba dañuy aar nit kooku moom ci boppam ci mboni boppam min shururi anfusina ci suñu mbon gi ne ci suñu bakkani bopp xam nga nit dañu koy aar ci boppam loola dafay feeñal rek xereñ gi yàlla subhanahu wa xereñ day feeñal mbaax gi nga xam ni ak yiw ak yërmande gi nga xam ni moom la jox ci yóbbante yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu indil nu ko muy l'islam ami wadit la sagesse de l'islam est couplé à son équité qui fait que et cela fait que nul n'échappe à la loi même pas les prophètes de Dieu subhanahu wa ta'ala à plus forte raison les khalifs les khulafas à plus forte raison les souverains ou les présidents de la République ou quiconque incarne ou exerce une autorité quelconque tout le monde est traité de la même façon comme n'importe quel citoyen, en islam, nul n'est au-dessus de la loi. Ce n'est pas seulement un slogan, mais une réalité. Parce que la loi, c'est la loi de Dieu. Ce n'est pas la loi des hommes. Nous l'avions déjà dit que chaque homme qui crée une loi se protège et agresse les autres mbokk yi tedd yi boo xamee ni bàyyi nañu xel ci lii nu la wax daa fekk euh, lislaam ñëw indi xereñ xereñ googu ànd ak maandu te gis nga ñaar ñooñu moo tax kenn mënul rëcc atte bi nga xam ne moom la lislaam teg atte booba yàlla subhaanahu wa taala jéggalu ci jéggalul defalul immunité yonent yi pour ñu jalgati atte yàlla yi mais defalul koo xam ni xalif nga nekkal seydna abu bakri ni siddiq yoon day tege ci sa kaw boo jalgati nekkal njiit président de la république yoral kilifteef ak ndombo tànk bu la neex boo defee lu safaanoo ñu teg yoon ci sa kaw ci lislaam mbokk yi lañu naan kenn jéggiwul àtte yi ki àtte bay baw fi kenn loola du waxi nen de gis nga citoyen ordinaire bi ak ka gën a kawe ci ndomboy tànk ñoo yem ci kanamu yoon ku ci njaaloo ñu teg la àtteb njaaloo ku ci fen ñu teg la àtteb fen ku ci wuruj ñu teg la àtteb nul ne jouit d'une immunité contre la loi comme c'est le cas dans les régimes laïques ou athées quand c'est nécessaire le chef de l'État comparaît devant les tribunaux comme n'importe quel citoyen et cela sans aucun protocole particulier, sans aucune procédure spéciale, comme nu la voyons pour des gens qui exercent des prérogatives de chef d'État et qui ne sont jugés qu'après la fin de leur mandat, cela n'existe pas en islam. Mbokk yi islam atteem jalgati yoon immunité amu ci mooy kaaraange bu ñu defal kenn amu ci amul kenn koo xam ni jéggi nga àtte comme ni ñu gis ci nguuru lay gi wala nguuru yéefér gis nga boo xamee ni bi chef de l'état jalgati na lu mu gën a tuuti rek mu wuruj benn dërëm bu gën tuuti day taxaw ci kanamu yoon ñu àtte ko comme ni ñuy àttee yow mii ak man mii toog gis nga te àtte boobu du am protocole de ñuy wax naan na ko garde yi wër nañu ko defal nangam déedéet day dugg ci tribunal bi amul procédure spéciale bu ñu koy defal teg ko atte ko bu bu nekkee ci yoon ñu ba ko mu dem bu nekkul ci yoon ñu teg yoon ci kaw lislaam xamul waa ji mu ngi def lu ko neex ci kaw mandature am président la diiru li muy nekk président lu mu def rek kenn du ko def dara boo xamee ni bàyyi na président ba ñu door ki yóbbu tribunal juge yi door am sañ-sañ di ko woo wala waa ji ministre la rek yoon mënul am sañ-sañ ci woo ko bu defee njombe mën na rey nit ci kaw tëli bi dara du ko ci fekk loola amul ci et puis la loi islamique a une caractéristique qui lui est propre c'est la sanction spirituelle qui n'existe dans aucune autre loi toutes les autres lois se limitent à une sanction matérielle ici et maintenant mbokk yi gis nga àtte l'islam dafa amaat beneen mbir boo xam ni moom looloo ko wuutale ak ñeneen mooy ni am na gannaaw duma yi àdduna yi dafa ci dafa ci gàll dumay yi àllaaxira nga fekk yeneen àtte yépp ñoom seen duma ci àdduna rekk la yem jéggiwu ko fii lañuy jéem a def la mbir mais amis auditeurs pour l'islam il y et c'est une certitude c'est le futur il y aura une résurrection et un tribunal universel pour un jugement divin. Et aussi, je devrais dire, un rejugement de toutes les affaires que les juges de ce monde ont déjà tranchées. Donc, juges, faites très attention. Au jour où on vous placera devant Dieu subhanahu wa ta'ala pour rejuger les affaires que vous avez déjà jugées. Et nul n'échappera à ce jugement dernier. On l'appelle jugement dernier parce que c'est un jugement sans appel. C'est le dernier appel que l'individu pouvait espérer. Que l'on soit maintenant prophète, que l'on soit président de la République, que l'on soit juge, administrateur, législateur, député, riche, pauvre, faible, tout le monde comparaîtra devant ce tribunal universel où les choses seront tranchées en toute équité dans la miséricorde pour ceux qui auront été miséricordieux, dans toute la rigueur de la loi pour ceux qui ont été sans cœur avec les créatures de Dieu mbokk yi ñu tedd ñu ànd ak nun ci bis bu tedd bii bëggoon nañu kenn ku nekk bàyyi xel ni ci lislaam dafa am dund geneen dañuy dekki gis nga gannaaw àdduna bi dinañu def benn tribunal boo xam ne yàlla subhaanahu wa taala mooy àttekat bi gis nga tribunal boobu dañuy bàyyi xel nii lépp lu ñu àtte ci àdduna dinañ ko fa àttewaat de bon yow mi àtteeg di dogal toujours bàyyil xel bu ñu la taxawalaatee ci kanamu ka nga àtte woon àttewaat sa mbir ker sa dab la mbokk yi la boo xam ne kenn du ko rëcc mooy bi mujj gannaawam comme fii ñu wax defal appel foofu appel amatul ndax mooy bi mujj foofa nag lañuy ñuy àtte ñëpp bu yeboo nga nekk yonent bu yeboo nga nekk àttekat yow ci sa bopp bu yeboon nga yilif àdduna bi yow yaay yilif àdduna bu yeboo yow yaay doxalal ñëpp bu la neexee amal alal bu la neexee ñàkkal nekkal borom doole nekkal ku néew doole foofa yooya du fa ay nattukaay nattukaay mooy ki tege woon mbiram ci lu baax almaaruf wala mu tegoon mbiram ci lu bon al munkar incha allah dinañu jagleel atte yooyu alquran nettali ci kilifa yi gën a mag ak ñi gën a tuuti ci midnafon yi dinañu ko jagleel ab jataay ci kàttanu borom bi subhaanahu wa nuy ñaan yàlla mu wërsëgal nu bokk ci ñiy dégg di mën a topp loola yomb nag euh, yàlla na nu ko defal ya rasul arrêtons-nous un peu sur le caractère généreux de la loi de Dieu subhanahu wa ta'ala, sur sa clémence qui vient compléter ses chances de succès pour faire régner la discipline sociale et le respect strict des lois par tous les citoyens mbokk yi faw ñu taxaw ci melokaanu àtte yàlla yi ak seen yéwan seen yërmande gi nga xam ne moom moo waroon tax ñépp bëmb daw ne nañ ñu àtte àtte yi ndax moom rek moo mën a tax sunu dund ci biir askan wi tege ci yoon moo mën a tax kenn ku nekk wekk jox cër àtte yi retenons tous ces belles recommandations de Dieu subhanahu wa ta'ala et de son prophète Mohammed paix et salut sur lui Dieu dit verset 237 sourate la vache que vous pardonnez est plus proche de la crainte de Dieu. Ne négligez jamais de vous montrer généreux entre vous pour dire que lui, il n'oubliera jamais de pardonner et d'être généreux. mbokk yi nañu bàyyi xel téye kenn ku nekk kàddu yàlla yi mu ne an taafu aqrabu lit taqwa ngeen di jéggale moo gën a moo gën a feeñal seen ragal yàlla wala tansawul fadla baynakum bon bu leen fàtte di defante njëkk ci seen diggante ngir wax la ni man yàlla subhaanahu duma fàtte def njëkk ci jàmm du ma fàtte di jéggale Dieu subhaanahu wa taala au verset de la sourate les femmes si vous faites le bien en public ou en privé ou que vous pardonnez le mal qu'on vous fait Dieu subhanahu wa ta'ala est indulgent et puissant. Quelle belle preuve de la recommandation de la clémence de la loi mbokk yi laay téeméer fukk ak juróom-ñeent yàlla subhanahu wa ta'ala mu ni in tubdu xayran aw taxfu aw taafu fa inna allaha kaana afuwan qadira su ngeen feeñalee yiw lu rafet walla ngeen nëbb ko wala ngeen jéggalee ñaawteefu dal ci seen kaw fa inna allaha kaana afuwan ghafuura xadira ngeen xam ne yàlla mooy jéggale yàlla mooy borom kat par ailleurs le Coran dit si vous excusez et passez l'éponge et pardonnez il est sûr que Dieu est pardonnateur et miséricordieux mbokk yi boo demee dangay fekk yàlla subhaanahu wa taala mu ni in taafu wa su ngeen jéggalee te jëllale wa taafiru ngeen bale fa inna allaha wér na ni yàlla gafuru rahim yàlla mooy kii yërëm di jéggale pour wax la ni àtte yàlla jéggale la ak yërmande de même le prophète Mohammed paix et salut nous donne ces conseils qui dégagent des principes juridiques d'une clémence insondable. C'est lui qui a dit devant le doute et l'incertitude, appliquez alors la remise de peine. bokk yonent bi alayhi salaatu wassalaam feeñal na àtte yooyu xiirtal nit ñi ci mbaax ak njekk ci kaw àtte yi mu ne idraul xuduuda bi shubuhat boo xamee ni lënt lënt am na mu bu leen tege bu leen dogal ci kaw nit ki bon teggil dogal Abdullah ibn Abbas et le prophète insiste auprès des hommes de loi en détaillant davantage autant dit-il que faire se peut il faut remiser les peines des musulmans celui qui a un quelconque recours acquittez-le que le juge se trompe en se montrant indulgent et pardonnateur vaut mieux qu'il se trompe en se montrant sévère dans le châtiment yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne idroul xudud anil muslimin mastataatum na ngeen na ngeen di yéexal teg atte yi ci kaw jullit ñi li ngeen ma man bala ngay condamné nit mu ni waaj ko waajaat ko fa man kaana lahu malja fa xallu sabilahu mu ni koo xam ne am na benn posé su tuuti rek mu ni jaar leen ci ngeen bàyyi ko mu dem yoon setal leen dërëm fa inna al imam in yuxti af xayrun min an yuxtiya fi l uqub mu ne ndax kat àttekat bi juum ci jéggale ak yërmande moo gën mu juum ci mbugal ak dogal ay àtte ci kaw enfin amis auditeurs tout le monde sait qu'en islam Comme le, dit, le disent les savants, le doute est interprété en faveur de l'accusé. Et que tant que la preuve de sa culpabilité n'est pas établie, l'accusé est toujours un innocent. Il n'est pas seulement considéré, mais il est innocent. mbokk yi euh, sunu jataayu tey dañuy fàttali ni boroom xam-xam yépp mànkoo nañu ci lislaam ni yu yufassar fi saalihil muttaham gis nga lënt lënt ak xel ñaar bu àttekat am loola ñu ngi kay e, fire ci côté luy jariñ ki nga xam ni moom lañu teg tuuma ci kaw su ko defee ñu bàyyi xel bon ni borom bi subhaanahu wa taala dañul di woote yiw dañul di woote yërmande ci àtte yi loola mooy tax dañuy xaw am jaaxle tuuti bu nu gisee àdduna bi ñuy dund ñu mànkoo ci benn kàddu te kàddu googa moom mooy li yàlla àtte moom mi bind àdduna yi bind jaam bi àtteem yooyu mënul doxal dund àdduna yi mënul yëwanal dund jaam di ñaan yàlla mu wërsëgal nu bokk ci ñiy dégg di mën a topp loola yomb nag yàlla nu ko defal أيها المختار أنت باب الله mbokk yi ñu nekkoon fii ci rajo Sénégal international àndoon ak sunuy mbokk vieux Mass Guèye Mouhamad Chérif Diop di leen jox ndaje ci kàttanu borom bi subhaanahu wa ci aljuma bi nu dëgmal ngir wéy ci càmbar àtte yàlla yi ak jafe-jafe yi ko nit ñi tegal mbokk yi yal na yàlla doon sunu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 wasalaatu wasalaam ala ashrafi almursalin sayidina wa habibina wa nuuri qulubina muhammad wa alihi wa sahbi زارك التسليم من يد التعظيم يحمل التكريم بصلاة الله يا رسول الله